jërë ngeen jëf mbokk internet yi safoo di seetaan Actubuzz TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu daal di dikk ak yéen ci euh, mbirum euh, député maire bi euh, di farbangom moom nag ginnaaw bi mu nemmeekoo ay koppar yoo xamante ne ni nekkatul woon ci këram fala la daal di dem ca brigade de recherche bi nekk Colobane daal di koy signaale koppar ya daal di tolloon ci huit cent quatre-vingt-dix ci noonu ki nga xamante ne nii nag moo sàccoon xaalis boobu daal dinañu koy mujjee jàpp du kenn ku dul Doudou nekk sax ba pare nekk itam garde corps am ginnaaw bi nga xamante ni nii moom xamle woon na ni 60 000 francs rek lañ koy fay ginnaaw ñaari liggéey yooyu nga xam ne doon na ko defal député maire bi euh, di euh, Farba Ngom moom nag ci kanamu euh, parquet ba maanaam ca baax ba la mu fa xamle mooy ni som ba ñu koy jiiñ jëlu ko lu dul ne 300 millions rek la daal di sàcc ca këru Farba Ngom ginnaaw ba mu dugalee loxoom jaarale ko ca fenêtre ba dal di jël som bu ni mel moom sax jotoon benn xaritam kooku itam jour ba nga ko ko dénkee la ko daal di gëj a gis daw na ak xaalis ba moom la ca la desoon ca xaalis ba moom jotoon na cee jënd benn terrain fële ca Gambie foofu sax la daal di làqatu woon moom nag instant yi ñuy waxee ak yéen mu nga fële ñu daal di su sous mandat de dépôt ba pare daal di saisir bépp matériel boo xamante ne nii amoon na ko abu jërëjëf Fa non jërëjëf Fa ñoom itam mbégte kontante mi naa la li nga xamante ne jamono ji ak fa réew mi toll ak eh, jafe-jafe réew mi fu mu toll ñu denc ko maanaam lu toll noonu ci koppar ci ci xaalis denc ko ci li nga xam ne mooy ci biir këram nekk loo xamante ne lu yéeme yéeme ak jamono ji nga xam Sénégal yaa ngi souffrir ci mbirum dund mbirum lekk ak naan réew maa ngi saturé trop trop trop nit denc koppar bu toll noonu ci biir këram ba ñu koy sàcc nekkan loo xamante ne daal lu yéeme daal lu métti tamit nag tamit euh, ki nga xamante ne mooy femme. ak euh, jamono bi ñu toll Abou est yaakaar nga yenn somme yi euh, yenn somme mmh. yoon permettre na la ko pour nga denc ko sa biir kër wala déet. waaw loolu damay dégg des ci ñi nga xamante mooy seen liggéey ñoo gën a màcc ci loolu ak ñi gën a xarañ ci loolu dañuy ne du may permettre loolu parce que nit ki yenn somme xaalis yi nga di ko denc li nga xamante mooy sa kër chauffeur bi fekkee tamit peut xëy na euh, dafa xeeb salaire bañ koy fay moo xëy na mu def loolu parce que nit tamit boo boo boo koy liggéeyloo war na di gis boppam ci carrément ci façon liggéey bi nga koy liggéeyloo parce que nee yoon nag ñi nga xamante ni ñooy avocat de défense yi defendre Ousmane Sonko ñoom dañoo dem rek daal di ñaan yoon ngir mu daal di euh, duggaat teg bët ci discussion ki nga xamante ni ni mooy Adji Sarr ak xaritam bi di Sidi Ahmed mbay ci guddik 3 février 2021 waaye itam indiwaat seen ay waxtaan li ko dalee woon ci décembre 2020 jàpp li nga xamante ni mooy février 2021 loolu nag parquet ba doon na loo xamante ne ni mu ngay ñaan kii di procureur daal di bañ lu ni mel ndaxte moom jàpp na ni kii di euh, Sidi Ahmed Mbaye ak Adji Sarr ay xarit lañ te seen xaritoo ñu ko woon benn yoon kon du yoon ñuy duggaat ci li nga xamante ni mooy seen ay discussion moo tax fi mu toll nii kii di euh, doyen des juges moom rek moo mën a décider ndax dañuy duggaat ci seen ay discussion wala déet mbokki internet yi ñu leen di fàttali ne Sidi Ahmed mbay moom nag xarit la ci ki nga xamante ni mooy aji saar waaye moo nekkoon ki nga xamante ni moo njëkk a yóbbu Adji Sarr ca l'hôpital pour mu daal di mën a def li nga xamante ni mooy analyse ginnaaw ba nga xamante ni kii di aji saar wax na ni dañ ko daal di violé man kii fa lii man man demoon naa dootuma ci waxati mooy li nga xamante ne mooy dossier Adji Sarr xam nga Sidi Ahmed Mbaye Ousmane Sonko parce que man dossier bi moom nee naa la man moom dama ko classé tege ko na leen yaa ngi comprendre man dossier bi du ma ci xuus lu bari yaa ngi comprendre li nga xamante ne mooy ci côté Sidi Ahmed mbay ak ki nga xamante ne mooy Adji Sarr lu ci mu waaye mun a am daal ak lu ci waaye mun a def daal ñoom la ñoom ñoo xam yaa ngi dégg Hmm, loolu la am lu ma leen wax ñoom. waaye ba tey jàppoo ne li nga xamante ni avocat de la de de défense su Ousmane yi ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy euh, demandé nekkul loo xamante ni dina mën a leeral mbir mi parce que ginnaaw euh, nit ñi ku ci nekk bëgg ngaa xam fan la dëgg gi féetee pour ku nekk mën a delluwaat ci say occupation est-ce que duggaat ci seen ay discussion tamit du mën a leeral mbir mi ba xam complot la wala déet. depuis presque daaw ba léegi bu dara leeru dara dootul leerati <coughs> yaa ngi doon nañ bàyyi ci xelu askan wi ñuy dox. di sonal nit ñi di yee ay fitna ko man loolu laa gis yaa ngi comprendre dossier Adji Sarr Ousmane Sonko nañ ñu ko jël lemal ñu ko ba mu jekk tegal ñu ko à côté te waxal ñu si mbirum dund gi waaw ñun nañ wax si mbirum dund gi ak dee yi bari am jamono ji ci dëkk bi xale yi jeunesse bi ñu mu fexe leen wutal leen liggéey ñu xool seen taxawaay yaa ngi dégg nañu bàyyi tout le temps ñu indi ñu li nga xamante ne mooy problème mu Ousmane Sonko Adji Sarr Sidi Ahmed Mbaye discussion yi et cetera léegi li intéressé ñu suñu yoon nekku ci yaa ngi donc journaliste yi bind sax peut-être ñoom ñoo am temps jaratul bind jaratul toppatoo ñoom yi kese la. moo ngi noonu abu ak euh, lu ci mënti am rek euh, lépp loo xamante ni nii daal mën nañ ko euh, jumtukaay boo xamante ni mën nañ koo utiliser pour dëgg gi daal di feeñ une bonne fois pour toutes mën nañ koo utiliser ndaxte tamit buñ fàttali buñ fàttali ay sénégalais ñàkkoon nañ ci seen ay seen bakkan et ba tey li nga xamante ni nii mooy cadre social bi mu ngi menacé wu parce que à tout moment bu si nit yi di waxaat jeunesse bi mën nañ génnaat li ci xewoon mën na cee xewaat alors nu mu gën a gaawee ñu daal ci indi ay solution ngir li nga xamante ni mooy intérêt euh, population bi alors euh, fii la ñuy yem ak yéen mbokki internet euh, Actubuzz TV di leen jox rek dig daje ci suñ ay yeneeni xibaar